والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi eh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax kenn ku nekk ci turam ak santam di leen nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, di nuyu tamit Euh, suñu sëriñ sëriñ El Hadj Mbacke Jaxate mi nga xam ne moom lañu si euh, ñëw seet si fii ci këram euh, di xam ne tamit ne jataay bu mel nii jataay la boo xam ne li ci nekk ci aw yiw daa bari ndax daje gi xame gi ñun ñi jaar ci daara ji ñëpp rek yiwu rëy ngi ci naka noonu tamit xam ne sëñ Mouhamed Mbaye wax na ko sànq siyaare boroom xam-xam ak liggéeyal ko ak màggal ko loolu lépp daa doon yoo xam ne eh, suñ wasiila Sëriñ Tuubaa dañu ko jàngal ci ay téeréem ba loolu lépp daje ci kon eh, waa mbooloo mi jamee bi ñi ko jiite ñi nekk ci kaw ndax ñoo ñooy sonn guddeeg bëccëg duñ leen gis lu mooy mën naa am bu bés bi bu bés bi jotee waaye teewut at mi lépp dañuy liggéey eh, bu ziar bi ñëwee tamit noonu la ñuy liggéeyee kon ñoom it ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen jaajëfal tamit ci euh, boole gi ñu boole ci bis bi te sax dañ cee bokk cee josaan euh, ni mu ko waxee sànq saa boo xamee ne daje nañ day baax ñu fàttalente ci suñ biir ci suñu wàllu diine wala ci suñu wàllu àddina ba loolu taxoon ñu daal di tànn tey benn thème boo xam ne ci lañuy def waxtaan wi Euh, daal koy dénk nag ku ko man muy sëñ Mouhamadou mbay mu war a waxtaan ak ñun ci li ñu tudde alshabab wa mustaqbalul bilad al waaqia wa tatalluat wala waaqia wa tatalluat mu doon euh, ndaw ñi ak ëllëgi réew mi seen nekkiin ak li ñuy séentu ci ñoom loolu la war a waxtaane ki ñu war a defal waxtaan wi tamit euh, di ku ñëpp xam mu jaar daarul maarif di sëñ Mouhamadou mbay mi ngi juddoo kajoor naka noonu tamit fa la màgge e, jàng alxuraan ba mokkal ko ci baay taxam bu ñuy wax sëñ Mouhamad Mbaye e, ci atum 2003 la ca noppi ginnaaw bi tamit e, niñ ko baaxoo defee dugg ci majalis yi jàng xam-xam def na ko jaar ci daara yu bari nag bokk na ci daarul maarif ak daarul mooti dem na fa naka noonu tamit Louga Euh, waaye ginnaaw bi mu noppee ci loolu tamit boole na ci école bi dugg na ci école bi daal di tàmbalee ci école ba li nga xam ne mooy école Sëñ Mbàkke Bousso ñu gën koo xam ci excellence fa la jànge euh, marxale ibtidaaiya ba am lijaasam bu njëkk di shahada ibtidaaiya euh, ginnaaw loolu tamit dem na Louga ci fa ñuy wax almahadul ali al islami ñu gën koo miin ci alxanafiya mu jàngee fa ba am shahada i'dadiya ci taqdir bu ràññeeku di mumtaz Euh, loolu doonoon ci atum année scolaire bi ñu 2011 2012 ginnaaw ba tamit euh, jóge na fa euh, biñ demee ba ci atum 2014 mu daal di am bourse daal di génn dem Tunis fa lay mottalee am njàngam ci jaamia Zaytuniya ci mahad alis nuñ koy tuddeeti mahadul alxadaar islaamiya ci la taxasus bi nga xam ne ci jaamia zaytuni boobu ci la nekkoon fa la amee licence ci atum 2018 fa la continuer tamit njàngam mu kawe ba am fa magistère ñu gën koo xam ci master euh, ba inscrire na di bindu doctoram tamit kon yaakaar naa dana man waxtaan wi euh, moom bind na ay tamit gëstu yu bëree bëri daal di bokk tamit ci ay nadawaat yu bëree bëri yoo xam ne am na ci réew mi wala mu am foofee ca euh, Tunis naka noonu tamit jàngale na Eh, ci majalis jàngale na tamit ci école yi ab diir eh, bokk na ci loo xam ne bind na ko ay baxuus muy mashron taxarujam bi muy am licence bindoon ci alxidma la da cheikh al xadim fikran wa mumarasatan naka noonu tamit magistère am mi ngi ko bindoon ci al manhajul islaahi inda cheikh al te doctoram tamit mu ngi koy bindaat ci seeni Touba di ci bind ci ar ruhaani wal umraani fi mashron cheikh al almuqaaraba al ijraiya wa tajriba almuqaaraba al fikriya wa tajriba al ijraiya kon kenn la koo xam ne war naa man thème bi ñu ko jox ndax lim taxasus xëntewoo ko cim njàngam mooy lu aju ci alxadaara al islamiya kon euh, muy civilisation islamique thème bi nga xam ne nag moom lañu ñu war a waxtaaneel di euh, alshabab wa mustaqbalul bilad waa waaqe wa at muy ndaw ñi ak ëllëgi réew mi seen nekkin ak li ñuy séentu ci ñoom ëllëg loolu la war a waxtaane bu soobee yàlla dana ñëw ak ñun ci ni bi bindoo xamal ñu bu ñuy wax ak ndaw wala bu ñuy wax ndaw ñi ñan lañ ci jublu ak lan mooy ak ndaw danañu xamal tamit eh, ñoom ndaw ñi lan lañ mën a participer ci ëllëgi réew mi naka noonu tamit eh, danañu waxal ci seen nekkin ñoom eh, ndaw ñi ci anam yu bëree bëri moo xam ci wàllu diine la wala ci wàllu social la wala sax euh, ci euh, wàllu politique la naka noonu tamit ci seen wàllu yar ak njàng ñoom ndaw ñi ak it seen nekkiinu tey wi ndax noo ndax euh, nekkin la woo xam ne dañ ko war a encourager wala boog nekkin la woo xam ne dañ ko war a corriger dañ leen cee war a orienté waat ak lépp loo xam ne aju na ci tomb yooyu danañu ci waxal bu soobee yàlla danañu waxal tamit bu fekkee ne gis na euh, li sabab nekkin wi danañu ci tuddal yi nga xam ne moo sabab nekkiinu ndaw ñi tey danañu indil tamit naka lañ koy saafara naka la ñuy saafara nekkin wi li nga xam ne joonu na ci li nga xam ne jum na ci tamit naka lañ koy améliorer mu gën a jëm ci kanam bu soobee yàlla danañu dikkal ci loolu lépp kon ngir ñu bañ a guddal euh, wala ñu bañ koo jiitu ci mbaram dañ koy daal di jox mu daal di tàmbali waxtaan wi sëñ Mouhamed Mbaye di xam naa ni thème bii nga xam ni moom la ñu jox mu nekk loo xamante ne ab soññ la ci ñun jëm ci góorgóorlu fàttalante ci suñ biir donte sax xam naa ni mbooloo mi ñi ñu ñoo gën a néew xam-xam ci ñi ko war a mën a taxawee mais xam naa ni eh, min baa bi tashrif pour teral ñu teral ñu doom moo tax xam naa ni ñu jox ñu di fàttali ni tamit danañ am fierté kontaan trop maanaam bérébu xam-xam bii nii bi nga xam ne ñun dañ cee bokk ci côté yu bare bare bare bari benn mooy ki nga xam ne moo nu jàngal alxuraan xam-xam euh, fi la bàyyi ko fi la jàngee lépp maanaam ki la jàngal lépp maanaam fi la jàngee lépp naa ni sëñ loo xam naa ni koor gee tàng bi <laughs> léegi a jaawale noonu daa am ñaari nuróon nag maanaam sëñ Mouhamed Mbaye mi nga xam ne mooy suñ waajur mooy waajuru sëñ Mouhamed mbay bi nu jàngal ñaari Mouhamed Mbaye xam naa ni moo waral mu kii kooku mooy suñ baay bu ndaw suñu Muhammad Mbay mii toog nag nga xam ne moo jiite jàmm yi moo nu jàngal alxuraan xam-xam donte bàyyam danoo jàngal mu ñëw yeggaleen waaw kon loolu loolu mooy lu ci gi kon bokk nañ ci ñaari anam ñëwaat ginaaw bi tamit mu yabalaan ñu ñëw jàng si ya yabal goo xamante ni moom tout chaque jour da koy wax bu jàngaleen donga bu mu toll fenn mi dem leen foofu ngir barkeeloo fa ndax xam-xam bi bàyyi ko foofu dafa barkeel te barke bi ñun xam naa ne xam nañ ci dara kon danañ kontaan bu baax a baax ci taxawoo fi lépp lu jëm ci xam-xam loo xamante ni xam naa ni day jëmmal ñi luy jariñ réew mi te di jariñ réew mi maanaam kenn jiitu ci béréb yi nga xam ne day day former ay ay ay ndaw def ci ñoom loo xamante ni buñ fa génnee danañ jariñ réew mi ci côté diine ak ci wàllu àdduna yooyu yaakaar naa euh, ñi xam béréb bi ak ñi fi génnee xam nañ ci dara kon thème bi nu war a waxtaanee nag. da nekk boo xamante ni maanaam réew moo dem rek ab tem la fa mooy àdduna bi fi mu toll ak ndaw ñi maanaam réalité bi ñu dund ak li nga xam ne moo leen di ëllëg ñu ñu xool ba xam ndax lan lay doon ndax lu normal lay doon wala loo xamante ni du normal wala bu fekkee loo xamante ni du normal lan mooy gàllankoor yi wala bu fekkee loo xamante ni luy normal la luy baax lay doon maanaam lan yan wan yoon lan war a jaar pour jëm ci Sénégal nag daa bokk ci réew yi nga xam ni moom leen wax al buldan al islamiyya réew yi nga xam ne réew islam la. réew islam lu tax ñu koy kii ndax li ëpp ci population bi réew bu ñu koy bëgg natt ci mbir mooy li ëpp ca réew ma loola lay doon maanaam li ëpp ci réew mi ay julli lan moo tax aglabiya bi maanaam majorité bi am Sénégal ay ay julli lan moo tax réew julli ñoo leen koy boole. kon bu ñuy classé xew-xew yi am ci réew julli si dañuy Sénégal da ciy da ciy da ciy da ciy ciy bokk te nag fam ciy sax mooy bu gaa yi classé àdduna bi buldan islamique yi dafa am réew yoo xamante ni danoo gën a néew cinquante pour cent am ñoo xam ne yegg na cinquante pour cent am ñoo xamante ni ci cent pour cent yi la leen di boole. Sénégal fi ne nii ci groupe boobu lay bokk groupe bi nga xam ne gën a maanaam ñi ëpp ci population bi maanaam ay ay julli la kon ba euh, jamaa al axira bi foofu lay bokk. léegi ñu fara waxtaanee ci lu ñuy wax shabab mooy ak ak waxambaane doomu aadama xëy na bu fekkee ci ci ci ci. Euh, séddale bu gàtt mooy ginnaaw bi mu nekkee ndaw xàmmeegul bi mu demee ba xàmmee ba toll ci ci diggu dooleem nga xam ne maanaam fa la mën a xamee fa la mën a ñàkk xamee maanaam fa fi mu war a defaroo maanaam waxtu yi nga xam ne fi la war a defaroo fa la war a yàqoo loolu moom la ñu wax ak waxambaane ndax bu ñëwee laata mu yëg ci waxambaane kooku day day day day néew kàttan day néew doole bu yëg see ci waxambaaneem day am doole doole doole bu ñu ko waxee nag du doolee kattan yi pour am kii nii rek mooy kattan ci lépp mooy ci wàllu xel ci wàllu xalaat ci wàllu maanaam euh, ci kattanu yaram ci kattanu maanaam mën a jàng mën a jàpp ak yépp maanaam yi war a des doomu aadama ba mën a ba mën a ba mën a jëmbal dara kooku mooy ak ak ak waxambaane bu waxambaane gi jàllee rek day néewaat doole day day day doole kon wolof njaay noonu la kii mooy dan naa xale bu nekkee ci ndaw mënagul mënalul boppam dara ak bu mënalee boppam dara mooy ak waxambaane ak bu tëlee mooy ak mage alquran karim mu ñu koy wax ci suratu ruum bu fekkee dañuy dañuy dañuy bëgg a baat bi alshabab am euh, tahdid alquran yi lu muy wax dañuy euh, yàlla suñu borom day wax ni mooy bi muy allahu alladi xalaqakum min donfin ma jaala min baadi donfin quwa su ma jaala min baadi quwatin donfa wa cheeb maanaam nit ki day ñëw am kattan bu demee ba yàgg kattan gi wàcc ba day day néew doole ñi ki day néew doole bu demee ba jëmmi jamono kattan gi daal yéeg néew doole gi wàcc bu demee ba ci toll ci mujjantalam bu tolle ci mag kattan gi daal di wàccaat tëli gi daal teew kon alxuraan karim noonu lanu ko géele bokk na yenn sa salama tamit hadis bi nga xam ni du da da lay wax sa jamono pour nga bañ cee nga bañ ko fooxe lim gën a bi mu njëkk a tudd mooy lan mooy sag waxambaane ak waxambaane waxambaane gi nga xam ne boo ci tollee maanaam nga fonk bu baax a baax lu mu la wax dañuy dañuy irtanim xamsan xabla xamsin na nga nanga nga màng juróom mbir yoo xamante ni yu am njariñ la balaa juróomi ñëw yoo xamante ni bu yëgsee doo doo doo ko mën a màngati li si njëkk wax mooy lan shababaka xabla haramik mooy sag waxambaane njëkk ngay màggal foofu tamit mën nga déggal ci xadis tamit maan li muy mooy nit ki fi ñaar rek ñoo ko seq mooy fi muy amee kartan ak fi muy newee kattan bu tollee sax waxambaane fa ngay mënee dara soo ko soo ko passé nag mënoo dara kon loolu lu am important la ak waxambaane nag ñooy ñooy mooy loo xamante ni réew moo dem suñ ko ñàkkee rek am jafe-jafe ko ñàkk buñ ko ñàkkee am jafe-jafe seen nga réewu Europe yi nga xam ni africains yi ñu ngi fay ñu ngi ñu ngi fay ñu ngi fay ñu ngi fay dem di tukki di jaar ci gaaleeg yépp di dem lu tax ñu leen may ñuy dugg maanaam rasid bachari bii nii maanaam cré maanaam mbindeef yi maanaam euh, waxambaane gi am Afrique amul ci réew te liggéey fa nekk waxambaane ñoo ko man moo tax ñu leen di bàyyi ñuy dugg bu buñ ko amoon tëj na seen i bu yàgg kon dugg gën fay dugg dugg masla Afrique boo xoolee daanaka mën nga di 70 pour cent ci population bi maanaam juróom-ñaar fukk yoo jël téeméer boo boo jël juróom-ñaar fukk ya daanaka ay waxambaane la loolu benn benn benn kii rek moo am benn xaara mooy mooy mooy mooy mooy Afrique am na ñu wax sax lu gën a lu gën a kawe lool. kon loolu mooy ak waxambaane buñ ko tënkee ci alquran li mu ko waxee ak hadis li mu ko waxee léegi nag waxambaane googu noonu ëllëg ab jëm-jëmam ëllëg maanaam ak mujjëm maanaam euh, avenir am ëllëg maanaam buñ ko bëggee waxtaanee fokk ñu tënk ko ci ñaar ñu natt ko ci maanaam jamono ji fi mu toll moom waxambaane boobu noonu bu dee Sénégal gi nekk surtout mënu tax di wax jamono ji nekk maanaam situation bi mu toll moom ndax dana ko permettre ëllëg avenir am mu nekkul agiré wu loo xamante ni mën na caa jariñu ëllëg wala déedéet loolu waral nag ñu jël baatu alwaaqe bi nga xam ni mooy mooy réalité li xew fi ne nii ci waxambaane yi ñu xaaj ko ay xaaj yoo xamante ni xam naa ni xaw naa limu xaaj bu njëkk bi nag day aju ci alwaaqe diini am na benn kii boo xam ne sax dañ ko tëb mooy jëmi ak waxambaane ci civilisation yu njëkk yi nin ko fi ko tegoon maanaam boo demee ci misra seen xadaaral qadima fa lañ tegoon ak waxambaane ba xam ni lu ëpp seen buur yi maanaam ay waxam ak ci liggéeyu rëy yi nii liggéey yëpp waxambaane la loon amuñ amuñ nekkoon ay mag nga ñëwaat ci siin tamit ay waxambaane woon yoo xamante ni ñoo ñoo ñoo fa samp la fa samp ba léegi ci seen seen seen ci xadaar insaniye bu amoon foofu noonu nga ñëwaat ci ñëw ba ci ci adiyaan yi maanaam ci ci maanaam chara i sama sama yooyu boo demee ci islam bu demee ci yahudiya ban ban si la dafa dafa waxambaane yi am boo ñëwee ci nasaraaniya ban wàccuwaay dafa waxambaane am boo ñëwee ci islam ban wàccuwaay dafa waxambaane am loolu lépp wax nañ ko waaye loolu dañuy ñëw ci islam bi xam ni daanaka ci lan askano maanaam moo mujj ñëw ci diine yi li lay doyal ki ne waxambaane lu lu lu lu lu taxaw ñoom ñoo ko taxawal luñ génn seen loxo tamit loolu mënut a continuer yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee makkatal ñi ko njëkk a wuyu ay waxambaane la ndax bi mu amee ñeent fukki at ci leen ko ci leen ko ci leen ko yabal mu nekk ab yonent ñeneen ñi ñëwaat ginnaaw bi ñëpp daanaka moo leen moo leen maanaam ci saaba yi njëkk a njëkk ñëpp moo leen mag kon loolu ñooñu day war ni maanaam ñu ñu ñu ngi ci ron yonent bi kon néewal nan 40 kon ñooñu ay waxambaane la Aboubacar ci la bokk nga ñëw amoor moom ci la bokk nga ñëw ci gën a ndaw lu ma ne Ali am na yonent sallam yaakaar naa bi muy bin koy bin koy yónni booba mu ngi am quatorze sallam te gis nga turam ni mel ci islam te loolu lépp ñoom ñoo ko taxawal ak Arqam ibn Abil Arqam mi xam ne këram fa la doon daje di fa nasaga nocci di fa laqutoo di def seeni réunion kooku tamit gone gu ndaw lool te boobu amoon na kër loolu ñu bàyyi xel baax a baax ñooñu ñoo samp islaam dëgëral ko bam bam ba mu toll fi ndax képp kuy woote wala loo bëgg mu jàll da ngay gën a bàyyi xel waxambaane da ngay gën a bàyyi xel waxambaane yi nga xam ni maanaam ci ngay jàllale sa risaala li nga bëgg a jàllale pour ñu mën la koo tasaare ndax mag jeexal mag jeexal na te gone mëne si ko taklif lee ndax tollagul ci attanagul pour ñu jox ko jox ko dara pour mu jàllale ko kon ku tolli si digg bi dong moo mën a jël mbir mi jox ko gone maanaam waajal waajal ko yor ko ba gone gi bu màggee mu daal ko koy mu daal ko ci tàgget mag mi nga xam ni passé na ko tamit mu ñëw wàcce pour wax moom waaw la ma tële mu jàppale ko ci waaw kon loolu kooku boo xambaane moo ko man moo nekk ci ci digg bi te alxuraan boo xoolee sax ni wax euh, ummatul wasat bi nga xam ne mooy mooy islam mooy umma bi nga xam dafa ñëw day daanaka day digg doomu kon waxambaane ci digg doomu googu la toll day bàyyi xel ki nga xam ne ñëwagul ak ñi nga xam ni passé na jamono kon kooku mooy ak waxambaane bokk na ci misaal bi ñu ciy joxee rek ci saxaaba yi am na kon usaamati ibnu zayd eh, ibnu zayd zayd ibnu bi nga xam ne yoon sa salama moo ko yar maanaam mooy waajuram bu góor yaayam mu nekkoon ummu ayman bi nga xam ni eh, abdallah bi nga xam ne mooy bàyyi yonent bi alayhi salaatu moo ko mooman moo nekkoon ma ab sangam ginnaaw bi bi mu faatoo dañ ko jox yonent bi mu nekk wàllam ci miraas mi ci ci kiiwu baayam fi ne nii moom moom la ko jox Zayd moom mu jur na Usaama Usaama moom yonent salaama bi mu koy jox na ko benn eh, jaysh benn guerre bu mu waroon defi la yonent bi laata mu fay jóge Usaama boobu amagul vingt ans am na ñu ni dix am na ñu dix-neuf ans moom la am te booba ñi nekk ci ronam mooy ay kilifaam mooy ay ay Aboubacar ay Omar ak ñoom ñëpp te ñoom ñoo ko mag fopp mais yonent bi dafa ñëw jibile ko moom la woo moom mi nga xam mooy ndaw jox jox ko drapeau bi ni ko yaay jiite yaay jiite pour encourager ñi nga xam ne ñooy ñooy ndaw kon ndaw yaa gën a am doole ci islaam bu baax a baax a baax loolu ñu bàyyi xel baax a baax bu ñëwee Sénégal suñu réew mii nag ñoo wax réalité yi nga xam ni shabab bi waxambaane yi moom la ni moom la ni moom la ñuy dund ma doon koo xaaj ci ay xaaj yoo xamante ni yu bari la bi njëkk mooy côté diine côté diine bi maanaam diine ji fii nii koy natt ci ci ci ci ci ci Sénégal fu ñu koy fu ñu koy fu ñu koy gi mooy mën na noo fixé benn mbir wootekat yi bari na trop ci réew mi tey ji boo ñëwee ñu fi gën a am doole maanaam ñi axlabee ñu gën a bari ci nit ñi fi askanoo ci kuréelu islaam yi mooy ñi dund tasawuf nga ñëwaat gis ñoo xam ne di dundu maanaam ñu ñuy wax salafiyee masalan am na fi nga ñëwaat am ñuy wax chia ñu ngi fi tàmbali am doole groupe yooyu nag bu amee ci biir biir biir biir réew mi xamal ni am na lu xew am na lu xew donte nag maanaam al xalaat chaque jour ci wàllu diine day avancé day avance bu fekkan kenn ku ne nag daa da da askanoo ci yooyu noonu yan lay digal nga nekk ci yan lay tere nga bàyyi ko loolu loolu nekk jafe-jafe mais benn jafe-jafe am mooy dina dababiyatu ruya am maanaam xalaat jëmmi jëmmi diin di diine maanaam ndax lañ ko déggee ci sénégalais loolu jafe-jafe bu rëy la foofu fi mu point bi muy gën a feeñe mooy lan nit ñi ñu xàmmee ñi ñu askanoo ci kii yooyu kuréel yooyu ñu xàmmee lan mooy ad diin ak wata dayul maanaam lan mooy islaam ak li nga xam ay déggiin la ci islaam jafe-jafe jafe-jafe la boo demee ci kuréel gu ne nag danaa la lii mooy islaam loolu moo ci jafe-jafe kuréel gu wax rek ba bàyyi rek da nga jàpp ne loolu li yor dong mooy islam te nag loolu lay exige taxaw ci indi dem ci alxuraan indi lu mu dem ci hadis indi lu mu ko layalee léegi lañu ndaw ñi nga xam ne nag ñu ngi ñu ngi xool kuréel yooyu noonu ñu jàngale islaam benn la te kuréel yooyu képp koo xamante ni maanaam maanaam yoon wi muy doxee wuute nag moromam saa yu wax daane lii mooy islam kon dafa mel ñetti islam moo am jafe-jafe foofu la amee benn la benn la ci réew ci àdduna ba mu waaye nag yonte salama bi mu kii islam ba mu mat amuman ci ci ci ci sa mbërtal mu ñëw islam day dox maanaam day day dox maanaam àdduna bi tamit ay xew-xew yi am islam di ñëw ànd ak moom léegi nag xew-xew yooyu bu ñëwee dafa am firi yu ñu koy firee firi googu noonu firim doomu adama lay doon yoo xamante ni moo xam ci wàllu bu dee wala tawxid maanaam ña cay wax pour tafsir tawxid mooy lan la ñuy wax loolu xel mu kalaam la tudd loolu tuddul tawxid léegi nag day koo xam ne ilmu kalaam lay wax ilmu kalaam mooy xam-xam bi nga xam ni mooy firi moo lay jàngal tawxid ñoom bu ñu au lieu que ñun la loolu tawxid mooy danaa la ilmu kalaam boobu noonu loolu mooy tawxid déedéet ilmu kalaam dalay lay jàngal tawxid mais du moom jëmi bopp mooy tawxid islam bu ñu ci demee benn pas-pas moo ci am mooy gëm yàlla suñu borom tabaraka taala mooy xeeti ngëm yooyu am yéen wax gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi gëm yonent yi yàlla yónni gëm dogal yàlla bi lépp lu ci ñëw ci ay lépp lu am muy muy moo xam ne lu nuru aw yiw la wala nuru aw ay ci suñu borom la bàyyi ko mooy juróom-benn xaaj yooyu noonu ak gëm malaayka yi juróom-benn xaaj yooyu buñ ko boolee mooy mooy usul yi mooy tawxid leneen lu ci ñëw ne di tafsir affaire boobu di ko di ko firi loolu tuddul tawxid xam-xam la boo xamante ne day wax ci tawxid léegi nag nit ki nag bu ñëwee di jàng nga koy wax wax yooyu borom xam wute yi ñu ci wute mu gën ni loolu mooy tawxid day mujj nit day jàkkaarloo yow sa nee na sa pas-pas dafa yàqu te yéen a bokk pas-pas ko teg jàngale yooyu ko jàngale mooy firi yooyu jàpp ni noonu mooy mooy réalité loolu problème bi am mooy ci boo demee ci manatiq ni ñu koy wax al al al jawhar wal ard li nga xam ne mooy rey mooy lii mooy mbir mi lii mooy mbir mooy tey jii moo ko misaale comme ñu ngi Touba tey jii bu ni al mouridisme mouridisme mooy lii xam ne Sëñ Tuubaa moo moom moon ma anti doon ko jàngalee doon ca dox di ci yar ay taalibeem loolu bokk la murit bokk la murit léegi boo fekkee murit li ñuy doxee ci moo xam ku juuma ku juumul moom ngi firi ni maanaam loolu mooy Sëñ Tuubaa wala mooy yoonu Sëñ Tuubaa jafe-jafe day am boo ñëwee da nga fekk Mourou Mbaye mu def loo xamante ni Mouhamed Mbaye mu def loo xamante ni du noona nga jàpp ni loolu la suñ tubaa jubloon te suñ tubaa jublu ci loolu loolu mooy jafe-jafe loolu moom boo ñëwee ci fiq tamit moo amaat diggante li nga xam ne mooy alquran bi nga xam ne mooy mooy lu mooy xam ne dara lu lu lu problème amu ci ak li yonent bi wax loo xam ne dara problème amu ci muy sunna waaye firi li ñuy firi alquran ak na dégg ni dafa wute nit ñi dañuy jël alquran mu ci tekku na le jël sunna jël sunna tekku na le mais firi yi leen firi ñooy kawee sax alquran ak sunna ci ci ci kii loolu jafe-jafe jafe-jafe day amaat nga ñëwaat ci li wax mooy bu dee bu dee bu dee ci téere suñu tubaab yi ñu koy tuddee al ihsaan wala mu tasawuf fay ba ci yonent bi noonu la ko tuddee ihsaan ñii fi rek tasawuf yeneen gaa yi góor góorgóorlu tuddee ko ñii ñi naa zuhdu ñi naa baax kii bari nag daal mais rafetal la tudd kenn ku ne nag boo ko firee firi ko ni ni nga firi mi nga xam ne jàpp nga ni moom moom la jekk mais la cay jafe-jafe mooy firi yi day wuute day wute mais kenn ku ne day jàpp ne li nga firi mooy dëgg leneen du dëgg loolu loolu amee nag waxambaane yi sabab bi nga xam ne ñoo toll ci jàng danay am jafe-jafe moo nga gis kenn ki nekk nekk nekk nekk lii ba si mu jóge fa nekk xale tey ji bu fekkee Mourou Mbaye mu neexul làmmañ mu wax moom mu jógee ca loola topp Mourou Mbaye ëllëg gisatul Mourou Mbaye mu daje keneen koo xam te ne bokkul ci kuréel gi Mourou Mbaye bokk mu neexul làmmañ mu jële ko ci loolu léegi ba ba day wër kuréel yëpp ba daj am na ñoo xam ne dañuy yegg say wax rek ngay déglu li nga dégg loo dégg ci rajo bi tey masala bu bees rek ñëw daal daal ci atte nit ñi de da ngay dem ba ñu formé la ba da ngay yegg foo xamante ni gaa yooyu doon wax nga leen diglu fa yi xoolee fa ngay dem di xoolee yow bu ko defee yow loolu dana dana kii kon jafe-jafe bi am fii ni mooy lan alwaqe diini mooy maanaam ndaw ñi bu màggee rek nekk foo xamante ni formé ñu ko jaaree fan ko war a day am jafe-jafe kuréel yu bari yi te lépp ñu leen islam la te islam nangu na loolu nangu na loolu nangu na loolu mooy gis-gis yu wuute solo doomu aadama bu ne xalaatam waaye nag gis-gis yooyu du islam ab gis-gis la ci islaam mais du islam du jëmmi ma islam boo ko jàpp islam nag foo la jafe amee kon loolu mooy kii bu njëkk bi beneen mooy ci wàllu politique ci wàllu politique alwaaqi siyaasi côté politique bi mooy politiciens yi yi nga xam ne maanaam bi Sénégal sa amee li ñuy wax ànd indépendance xaw ma li ñuy wax istimar maanaam istidmar laa koy laa laa koy laa koy laa koy laa tudde sax maanaam jàpp ni moom na suñu bopp teg fi ay politiciens yoo xam ne ñooy dox réew mi boobaak léegi li ñuy wax benn discours bi la saa yu ñu wootee meeting day fees dell te liñ ci wax lépp bu noppee duñ ko gisaat ci wàqe bi te saa yu woote waatee mu feesaat kon kooku jafe-jafe am na loolu daa am lu ko waral daa am lu ko waral réew mi ñaari kilifteef ñoo fi am daa am kilifa yoo xam ne ñooy kilifa yi diine yi am ñoo xam ñoo ñoon wàllu wàllu wàllu foofu nag jafe am di jafe-jafe fi mu am mën ngaa bañ a jox toor kilifa diine yi bu baax a baax a baax waaye nag jafe-jafe fi mu amee dëggantaan mooy lan moo tax kilifa diine ñoom si njëm boppam maanaam ñi ni nax sax ñoom ci leen bokk ci leen bokk waaye gars yi leen nax fi ne bu ñëwee ci kilifa diine yi dañ fa yor kàddu goo xamante ni wala ñu ñu dalal leen noo xamante ni dañuy jàpp ne ñoom li nekk sax dëgg la mais même kilifa sax mën naa bañ a yëg li xew wala man naa bañ a yëg yëg kii nii maanaam kuy nax réew mi la waaye gan bu ñëwee mënoo ko mënoo ko mënoo koo jan foog nga dalal léegi nag ñi ndaw ñi xam ne ñooy seetaan loolu ci image yi dana comme comme sëñ bi dalal na ko de ko kooku moom baax na ci yoon moo tax policier day ñëw benn benn day ñëw Touba par exemple daal ni ab meeting mu mokk ak ñetti biir sëñ Touba su ko jàllalee rek maanaam gars yi daan ah waa ji sëñ bi la fonk bu wootee jotee ñu watal loolu dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa yomb léegi kilifa diine pexe maanaam jëmmi jëmmi politique yi politiciens yi ñoom dañuy def lu leen neex di di leen neex bu demee si kilifa diine ak baax lañ fay wane lu kilifa gi bëgg ñu taxaw ci kilifa gi nag mën naa jàpp ne li ñu koy defal moom la defal population bi nekk defal ñu ko population bi kooku du am du du mën a am lu mu ko mais kilifa gi xam nii nag waa ji day ñëw pour pour pour muur muur ko lënd kii kii ko lëndam ñooñ nag ñooñ ñu xamee loolu ñooy taxaw daal ni politiciens yi daal leen di contre mais ki xam daa toog toog daaram par exemple wala mu nekk ak kilifa gu man di doon këram lu mu soxla ci mbirum luy doxal daara ja politicien bi ñëw defal ko xamee ko lu bon te waa ji bi mu koy def politicien bi pexe moo tax sëñ bi xamul lool kon sëñ bi ko kenn du ko teg toor ndax da koo xamul xëy na ña ko jege ñoo war a wax ak sëñ bi ci wàll woowu léegi ndaw ndaw mi nag mooy victime bi jafe day mujj day mujj day daan ah, maanaam euh, lëkkaloo daa am diggante kilifa diine yi ak politiciens yi dem demewul noonu te gars yi bu ñu ñëw ay kii lañu àndal ay journalistes lañuy àndal politicien mën naa ñëw Touba gi par exemple ñëw fi bàyyi fi dërëb daal ni tudd ni ay millions la fi bàyyi bu génnee fi journaliste yi ko toppoon ñu bind ko ñiy liir ko ñu bind ko ñi dégg ko ñu ni lii la wàcc Touba sëñ bi du am jotu génn naa day weddi lool léegi gars yi loolu dëgg la sëñ bi bu génnoon weddi ko leneen chaque jour kon day génn di wax te loolu day mujj day sàpp day sàpp kon jafe-jafe am na jafe-jafe am na kon sunaaya bi am diggante sulta siyaasiya ak ak zaama diin ya loolu foofu tamit dabaab yi dafi am ndaw mi ndaw bi bu fekkee yeewul xamul réalité li xew mën naa tuumaal kilifa diine yi te loolu te kii du xam kilifa diine yi tamit maanaam bu fekkee li koy politicien bi defal maanaam bu ñëwee wan moo moom ak taalibe ni rukk daal di tari ay béy ni sëñ Tuubaa la gëm wala nangam ak nangam daal dem bu fekkee xamul waa ji mooy kan dëggantaan maanaam mën na koo jàppale ci loo xamante ne dana lor askan te kon jafe-jafe boobu loo xamante ne lu nu war a moo àla jël lu nu war a seetat bu baax la xëy na bu demee bay indi muqtaraxaat yi nga xam ni moo koy kii dana ci gën a ñëw kon problème bu siyaase bi problème bi foofu la amee li nga koy xamee ni maanaam jafe-jafe am na mooy ci ci kilifa diine leen leeru leen am na xew-xew amoon bu yàggul bi ndaw ñu génne ba kii tàmbalee am bi ñu génne ñoom ba gëstu li xew xam na ne kon ndekete lii mu ngi doon xew ci dëkk bi te xamuñu kon kon foofu yi ngay maanaam askan wi jafe bi am mooy daa wéeru ci politiciens yi jox ko réew mi jàpp ne dana ko jàppale kooku falewu ko mu dem di ko boole kilifa diine kilifa diine gi moom lim xam ci waa ji du li ko waa ji li ko li ko li ko population bi wax moom lim xam la mën a jàpp léegi jafe-jafe day am foofu kon loolu li li li li li lii dimbali foofu noonu bu baax a baax mooy kenn ku ne xam rôle am maanaam muy diggante ñoom ndaw ñi nga xam ne ñooy ñëw ëllëg ki ni teg ci réew mi ñu xam mooy kan yaa ngi jëmmi kilifa diine gi ki muy encouragé wala mu koy dalal mu xam moom mooy kan maanaam day war topp actualité réew mi liy dox ba ba tax man kenn du ko tuumaal comme ni maanaam ki nga xam ne daa xam dara ba pare teg ci tànkam loolu jafe-jafe la boo xamante ni boo am la tamit kon mooy mooy mooy côté politique côté côté euh, saqaf ak ak ak jaanib maanaam mooy alwaaqi fikri yi ba saqaf yi maanaam ci côté xalaatin ak ak culture jafe-jafe la boo xam ne dafa am ci ndaw ñi Sénégal boo ñëwee mooy réew moo xam ne boo ñëwee lépp nga fi fekk lépp nga fi fekk da nga fekk yenn saa nga gis Sénégal di werante kii Sénégal la am naar la wala nga gis xolu Sénégal di werante Sénégal la wala ab tubaab la gis Sénégal di Sénégal wala ab Inde la lépp am na Inde sax day gis koo xam ne day woy Inde yooyu lay toppandoo ci bi ni muy soloo ni muy waxee kii tubaab bi lay toppandoo ni muy soloo ni muy waxee kii naar yi lay toppandoo ni muy soloo ni muy waxee jafe-jafe nag bu njëkk bi mooy mën na Sénégal comme que islam moo fi jiitu tubaab bi fa lay njëkkee jafe-jafe njëkk ci naar ci naar lay dal maanaam gars ak ak euh, naari diine ci ñoom la jaar d'accord ba ñëkk si yëg si ñun waaye diine jaar gi mu jaar si ñun taxul ñu bokk ay réalité am na am na domaine yoo xam bu ñu fa yëgsee muy jigante wàllu wàllu wàllu colu wala ay xeeti fatwa yi muy doxee ci dëkk bi réel suñu réalité ak réalité naar yi bokkuñu naar yi moom moom xëy nañu jaxasoo ñoom xam ne ko liñ sañ moom ñu xaaj ñu ko sañ bu fekkee lu wax lu wax seen téere rek ñu bëgg ko wàcc suñu réalité bi dana am jafe-jafe ndax bokkuñu bokkuñu ay réalité sëñ Tuubaa bi wax ci Masaalikul bi xam ne danga xëy na borom xam-xam ne koy tuddee al muccamal masaliki bi mu koy critiqué bokk na mi critiqué mooy maanaam yëg gin yëg suñu bopp ci kanamu naar yi maanaam ni maanaam naar yi ñoonu féete kaw ñun am na ñoo ne bayit bu ñu jàng jàpp sëñ Tuubaa loon waxal déedéet sëñ Tuubaa dafa wax dafa am maanaam euh, jamono jooja dafa wax ci ay wax yoo xam dafa bari lii ci tubaab bi lañ koy askanale fa lay jëm lii ci naar lay dem dañ ko mën a dégg ndax masaliku ji naan maanaam sëñ bi bi mu naa walaay sa duka madal asmaani madal asmaani an aqdihi kaw nii min a suudaan lu wax ba masaal lay wax téere bi ma bind li ma nekk maanaam africain ñuul bu mu tax nga jël ko kooku waxul ak tubaab parce que tubaab bi jànguñu diine boobu kon loolu ko naar lay wax xam nañu bam naa bam naa ba mu dem ba ca ba ca kanam lu mu wax bi mu naa akramul ibaadi indallahi aktaruhum taqwan bil istibaay fa sa laysa yujibu sawaadal jismi Eh, kii ba am na fu wax balaa da kii fële si yukk si bu sawadal gis mi balaa datal fataawu soo alfaami wax na ko ci benn masalik mooy masalik bu bu bu mujj bi am na fa ba ni fële si yuy bu sawadal gis mi safahatal fata wu soo alfaami wax na ko lu mag ñett yoon ci ci masalik yi masalik yi bokk li loolu foofu fa lay wax boobu tamit waxul ak tubaab bi suñu problème ak tubaab bi foofu booba dese naa ñëw comme comme comme comme ni ko ni ko tasawuree léegi fan lay waxee ak tubaab bi nag tubaab bi nag bu suñ tubaab fi waxee ñoom boo demee ci ilhamu salaam fi dabbi an din foofu moom day wax ak tubaab yi maanaam ñoom lay ñoom lay critiquer mooy yow yow yow yow en tant que sénégalais bu fekkee tubaab yi dafa indi loo xamante ne dalaa jaaxal ay xeeti armo ak ak ay ay chars combat ay kanu nga jàpp ni neen sëñ bi sax dem na ba am na ñoo xam ne dañuy jàpp ni maanaam ñi ay malayku rahmaani waaw wa minhum ma in ra nasrani yaxsibu min malayki rahmaani maanaam loolu xoq da la maanaam mooy mooy yow da am complexe jàpp nii tubaab bii nii fi nii moo la gën a kawe dem na ba jàpp ni maanaam nee na seen doole jooju àqal moom bay bay ma ma nekk bu jàmm ñoo xam ne ak jàmm moo leen dund ak jàmm moo leen gënal ñu ñu nekk ab sang ñoom ñoom loolu seen tabi'a la ci ñoom kon loolu danoo dal si suñu diggante ak tubaab bi kon suñ tubaab fële na leen léegi li waral lool tamit ci masal li ñu koy gën a déggee mooy ci li gars yi naan tashriful ansab bari na Sénégal fii nii fii bala nga bala sa nasab gi nga bokk askan yi nga bokk bala moo for foo nga ñoddi ko ba dem ci naari waaw nangam la jóge nangam jóge ba ci naar taf ko ci benn saxaaba wala ko taf ko ci benn maamu naar te loolu loolu du force ma am na nag am ko am waaye léegi nga am am naar ñàkk nekk sa maam sa maam téew la baax parce que naar yi gënuñu gënuñu gënuñu gënuñu boo jax soog naar yi nga xam ne naari naari naari naari naar yi naar yi euh, gënuñu loolu tamit complexe la boo xamante ni bu am la boo demee ci téere naar damay gis yi nit ku ñuul mënta am mun mënta nekk bu yonent da nga koy gis am na yoo xam ne daa dem ba ay tasribaat ci téere yoo xam te ne day tasaaro ci te ne dañ lay gëmal ni la ab yonent yi mënta nekk nit ku ñuul te en réalité amul a mën a wa nit ku ñuul lan lay mën a nekk amee xel am na yoo xam te ne sax xëy dañuy bañ a da ngay dem fekk ñu la nit ku ñuul a amul xel moo xamante ne moom lay moom lay moom lay xalaat lu lu xew la loo xamante ni mu ngi ci biir téere yii ni jàng nii mu ngi ci jafe-jafe boo xam moom la am léegi pourquoi yow boo jàngee ba toll fenn bi waroo jël loolu nga xool corrigé ko boo gisee nag jàpp ne loolu mooy islam déet du islam loolu xalaat yoo xamante ni ay xalaat nit la ñoo xam noonu lañ xalaatee malgré xëy na noonu lañ leen yare noonu lañ leen jàngale loolu tamit jafe-jafe la boo xamante am na bu ñu ñëwee si tubaab bi ma daam koo xam ne jàpp na moom daaneel te tuddul France waaw en France nangam moom moom jàpp na ni moom nekku ci daara dafa ba day dal arabi sax yi léegi sax ñuy jàng diine booy wax ba baatu baatu nasaraan dugaloo ko sa wax bi wax maanaam wuree su ko dégg wala doon naante daal boo ko bokkoo ko boo ko boo ko ci kii bi li di daw ci réew loolu tamit comme complexe la te mono de mën na noo teg ak tubaab fële ak naar fële nekk ay sénégalais nekk ay jullit ba noppi di dox di réew mi ni muy doxee ñu dox loolu loo xamante ni loo xam lu war a lu nu war a bàyyi xel la moo tax fi ni ni sira fikri bi am ci diggante ngay dégg ñu naan ñee ay mutasawifa lan ñee ay ay ay ay wahabis lan ñee ay ay ay chia lan jafe-jafe yëpp boo xoolee surtout jamono léegi boo ko ci diggante al furs wala maanaam alqadaya kii la siyaasiya moo ci ëpp ci diine xew-xew yi politique la yoo xamante ni yow sa yoon nekku si naare sa dana koy wax dañ ñëw ni la ba suñ coow am suñ mi nekku seen réew nga ko déen mu bu ngeen ci dugg suñ loolu problème la suñ biir seen yoon nekku si la koy waxee ngay dégg kon yooyu bu ngeen ci dugg ay xew-xew yi kii kii kii ñi ñoo ànd ak yonent bi fa ba dee shaay danaa euh, albayt la lay wax ñii boo ñëwee ñu la ñuy neel ahlu sunna waaw maanaam kuréel gu nekk ak ak la muy wax maanaam kenn ku ne jàpp nga ne yaa yor islam ju wéri keneen ki nekku ci islam loolu loolu loolu jafe-jafe loolu suñu yoon nekku ci booy fekkee naar yi xulóog seen morom yi ñeneen yi bi ci gën a nekk jafe-jafe nag mooy benn Mouhamed mbay mooy génn jàng ci réew naar yi fekk fa xew ne maanaam naar bi nga koy ci réalité réewam la de mu yanu ko indi ko Sénégal daa daal application bi foog mu dugal ko ci portable bii daw Sénégal pour mën a daw loolu loolu loolu tamit jafe-jafe ma jox ci misaal mooy da ngay dégg ñu ne gars yi ñu ni wasu ñenn ñu ne la ubbaatul xubuur yoo xam ne daanaka da gis yu bari yu gars yi wax da nga koy teg bët wala ñu dem ba ci bàmmeel di rey ay di rey di di rey ay ay gàtt tour tuur deret yooyu wax dëgg yàlla ñu dund Sénégal ñu bari bu ragal bu ragalee yàlla loolu gis ñu ko ci réew mi barab yi nga xam ne ñoom ñoom la miin nit ñi di ko ziar nii gis ñu fi ñëw di fa tuur dafa ñëw di liggéey Sénégal yegg na foofu nit wax na ma loolu boo ñëwee ñun la doo doo fi li doo doo doo dugg ci kii bi ci ci biir biir biir place bi parce que loolu tax yëre Sénégal nga sol Sénégal nga nekk mu ne foog nga sol costume wala nangam waaw télévision nationale gi yegg na foo xamante ni boo defee journal français yàq benn baat boo paree Senghor la woo dàq la waaw français baat français boo yàqee ci wolof kenn du la dàq loolu loolu problème la problème la taxaf yéen loolu problème kon da dem ba jàpp tubaab bi maanaam seenu kii ñoo gën ñoo moo gën a war a sax li xew ci réew mi loolu loolu tamit jafe-jafe bu la teewul nag ñun la culture jàmbur boo gisee xëy na mu am njëriñ ci islam tereelu ko mën nga cee jariñ mais li bon mooy nga jël culture boobu teg ko sa ko culture daani moo ko gën a fort bu dee naar yi nga taf ko ci islam daani islam mooy complexe bi tamit li complexe li ci li ci aju woon tamit mooy lii ñu waxoon léegi mooy léegi kuy jàng alquran karim di alquran yi nga xam ne maanaam kenn ku ne yàlla moo bind sa kàddu ni mu demee da nga xam day toppandoo am naar de maanaam naar bi cassette bi muy diglu fi mu jooyee sax dafay taxaw jooy maanaam maanaam maanaam tey kii diggu sudee si wala waxsar yi maanaam bu ñëwee fii waxsar yi taxaw jooy fi bu ñëwee waa ji dana fexe ngi ngi ngi wala mel ni loolu dafa nekk diine wala dafa nekk kii loolu problème la boo demee ci fépp da nga koy fekk bu dee côté situation da nga koy fekk bu dee ci wàllu xalaat da fekk foo dem da fekk maanaam naar yi bu ñuy wax seen ay baaraat yi utiliser ci seen téere yi bu nu amee seen seen kun kun amal problème sénégalais bi ñëw ñëw Sénégal moom la koy utiliser war ci mborom sénégalais donte sax li bi li muy wax tegu ci bët loolu tamit jafe-jafe la boo xamante ni war na cee kii kon xew-xew yooyu bu amee kon réew mi am na jafe-jafe kon dangay xool ni Sénégal xew-xew yépp indi ko fi mooy maanaam am na loo xamante ni ci biir lay bàyyi ko bu ñëwee ci saba asbaab bi saba bi danañ ci taxaw am na loo xamante ni ci ci ci biti ci biti lay bàyyi ko kon loolu noonu jikki-jikkiwul ni cëpp am na lu ko am na loo xamante ni moo ko waral li ko waral nag ci la ñëw daa daa daam lu ko waral loo xamante ni day dellu ci waa réew mi am na loo xamante ni day dellu ci maanaam adduna bi ni muy ni muy ni muy ni muy doxee sabab bi bàyyi ko ci réew mi ni ko waxee mooy Sénégal dana am ay réalité yoo xamante ni am na suñ mag ñi fi nekkoon avant islam suñ mag ñi fi nekkoon avant islam am na nun doon yare amoon na ay jikko yu rafet ak yu mel noonu te tubaab bi dañoo gëmal nii ñun ñii Afrique mooy réew moo xamante ni amuñu civilisation maanaam ay gars yi lañ yoo xamante ni nii daal kenn musuñu leen xam ci luñ def loo xamante ni lu mën a teg loxo te loolu wérul wérul boo gisee yarin yi mag ñi ñi nga xam ne ñoo yar yaru mag ñi maanaam da xam ni maanaam jëmmi lu baax bëgg lu baax bañ lu bon amoon na fi même avant islam parce que lu baax lu bon moom daa yàgg da daa dana yàgg xeex ci àdduna bi dana yàgg xeex mooy avant islam ak islam islam bi ñëwee ci la encouragé lu baax daa di tere tere lu bon. léegi nag boo demee ci tubaab bi mu mu jàpp ni moom moo yor lu wér ba mu tax ni yow boo bëggee lu baax boo ci boolul ak tubaab ñu ni loolu baaxul bu fekkee dangay ngay da bëgg bëgg bëgg ci mbirum diine boo ci boolul lépp ay na lépp léppi naar ñu la daan ko yoro diine. loolu jafe-jafe la boo xamante ni ab xoq dal la lu fas suñ suñ bopp yee loo xamante ni war nañ cee jéem a taxallus sabab bi nag li ci bokk mooy mooy Sénégal moo réew moo xamante ni maanaam lu waay andi ñu la ñu la andi lu waay andi duñ jàngat lu waay ñu jël ko noonu lañ koy jëlee dara ko intégré ci dëkk bi duñ ko sekk am na réalité yu amoon yoo xamante ni maanaam su suñ dëkk yi la amoon loolu li tegtal al huwiya al ifriqiya maanaam nit bu demee bi identité maanaam maanaam jëmmi moom mooy kan amut xamatu ko boo ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fekk fekk fekk fa seeni borom maanaam boo demee xamoo yaay kan xamoo sa cosaan mooy lan xamoo say maam lu liggéey bu kenn ñëwee di tagg ay maam sa kaw di xas say maam nga naa ko est di ko fi tasu moo xam ay naar la wala wala wala ay tubaab la kooku da ngay dem ba da ngay mujj liggéey la ko zawaban da ngay dem ba muy da ngay ruy ci ci ci ci ci ci ci civilisation yi mooy moo xam benn ci tubaab bi wala ci kii bi parce que ñaari civilisation yi ñu ci gën am doole Sénégal benn mooy soo soo soo séyul ci tubaab yi chez chez ci naar yi léegi nag dafa am benn làmmusoj boo xam ne lu am la af nga nekk africain nekk ab jullit boo xamante ni da ngay dund islam ni waree di du maanaam di di di di di participer ci wàllu xadaara wàllu civilisation bi ni mu demee te dangay ngay nekk ab Sénégal lu gis xam ne ab Sénégal loolu mën a nekk la tu am la te teg na ci bët mais comme que irlam bi mu ngi fi boo xamante ni gars yooyu noonu mooy muy naar yi wala ñeneen ñëpp dañuy ànd ak waa presse presse moom li ñu tàmm déggal sa nopp yi nga koy gis doomu aadama lu muy dégg di ko gis loolu lay jàpp ni mooy dëgg te mbir mu demee noonu am na fooy toll boo xam ne li ngay nga a am li may gis xam ne man moom lay jàng tim di ko jàng est-ce que li may jàng dëgg la jëfandikoo jëfandikoo sa naw naar yi par exemple nga dem ba bopp ne la maanaam yéen ci diine yem leen ak ñoom teewul yow boo xam te ni ci naar la jàngee dégg na ci naar yi ba tay ñu koy jàngal ñu koy yéen maanaam ni leen yare yar bi ngeen am wala islam bi ngeen dund bokkut ak suñu réalité te li leen naar bi wax tënk ci bët laata ma la ko wax mais téewul bu ñëwee téewul day topp ci ginnaaw naar mu dem ci tubaab bi tamit gis loolu xam ni nit ñu yaree wala maanaam façon façon façon façon yar yi ñu yaree ci wàllu ci biir famille yi respecté mag yërëm ndaw maanaam nangoo sonn am jom wala yu mel noonu da koy am mais boo da gisee boo gisee tubaab bi def lu mel noonu maanaam mu tubaab bi ngay gën a yëkkati que africain bi bi ko def li lay ci loolu mooy lan da ngay dem ci maanaam par exemple université bu Dakar naar yi ñëw di fi jàng maanaam marocain ak tunisien dañ fiy jàng si wàllu médecine lu bare bare bare am naar di fa jàng marocain ak tunisien di fa jàng ko benn sëñ Moustapha Lo ñoom ñu génn yor benn diplôme yor benn diplôme tey ji naar boobu nag bu jëleen bu jëleen ay kayitam déposé ko sëñ Moustapha Lo muy teg ci dëkk bi mënoon a jël tunisien bi jël marocain bi duñ jël sëñ Moustapha Lo ngir complexe loolu day am wala tey jii nii sëñ Moustapha Lo ubbi benn cabinet biir Sénégal di faj moom naar bi ñoo génnandoo de fi ne nii Sénégal bu waree faju day dagg bi dem Maroc wala mu dem Tunisie parce que ñey ay naar wala mu dem bu fekk donte ab tubaab la mu dem France dem faju ci parce que ñoom ñoo génn bokk ñoo bokk fu ñu génnee ñoo bokk lu ñu kii daa ñuul te ji boo demee di di di ay dàll par exemple ñu la dàll bi dàllu ngaay la ñu la dàll bi dàllu Italie la wala Amérique dàllu ngaay fa lañ koy bàyyi dem jël dàll te dàllu ngaay moo gën dëgër da ngay xam sax moo gën dëgër mais comme lay dem moom lay dem jëli kon wàllu huwiya huwiya bi ni am mooy xam ak li nga xam ne moom nga man ak li nga war a jiital ak li nga war a mujjat waaw bëgg sa bopp nag teewul da ngaa bañ keneen mais dangay bëgg sa bopp ba keneen boo gisee keneen lu mu am lu baax nga dem nga dem jariñu si loolu mooy mooy dëgëral nit ki huwiyam nga xam yow yaay yow yaay yow yaay loolu lu jar a bàyyi xel bu dee asbaab bi nga xam ne xaarijee la bu demee ci xarn bi bii jeex ak bi dugg ci mujjantal gi dafa am ay ger yu fi amoon guerre guerre mondiale ñaari guerre yu njëkk bu njëkk bi ak bu mujj bi bi mu jàllee réew yi di xëccoonte xëccoonte am na ñaari kuréel yoo xam ne bii ñu leen wax Chiwaaya bi Rasmali ñoom ñaar ñi xëccoo àdduna bi léegi réew réew yu doole yi kenn ku ne day am fooy yéem askano benn nga boole bokk ci groupe bi wala ci groupe bii nii bi yàlla demee ñu fi doole trop trop trop trop bi nee ba Rasmali daal koy ko bu dee xaalam islamique surtout fii la fi lay gën a privilégié jafe-jafe ci la gën a amee xam ne boo demee ci biir réew julli yi fekk da ngay fi ñi ay Chiwaaya yoon lan mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ni shura mooy lan maanaam jëmmi jamaa mooy fawqa kulli shay maanaam nguur mooy mooy mooy mooy yàlla maanaam ci gàtt ci gàttal nguur mooy boo demee ci rasmaliya daanaka da nga naan kon personne maanaam fard mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy yàlla kon yàlla yi kay yàlla yàlla yi mbooloo kii yàlla yi kenn kon jafe-jafe am na ñoom ñaar bokkuñu ruya bokkuñu gis-gis ci doxalin àdduna léegi yow kaa boo ci bokk nag bu keneen ki gañee danga am jafe-jafe keneen te ñun ñun réew jullit ñëpp ay toppee lan ay toppe lan maanaam ñaari ñaari ñaari kuréel yooyu ñaari xutb yooyu juddowuñu ci réew jullit te réew jullit ñoom lan topp ci wàllu économie léegi kon lu fa jóge ci ay njariñ dana dana dana rogalaat ci ñun mais lu si jóge ci ay jafe-jafe tamit dana rogalaat ci ñun bi loolu amee nag adduna bi daal di soppeeku adduna bi soppeeku bi demee ba surtout nag gis ni réew jullit ñi nga xam ne ñu ngi doon tàmbali di di dem ci yebal seen seen seen seen seen i ndaw ñuy dem Europe di jàngi ñooñu bu ñu ñëwee di jàng si du leen dàq ñoom former leen def ñoom ay xalaat xalaat yi nga xam ne ñoom moom lañ bëgg bu ñëwee ñoom it ñëw seen réew kun fa fekk koo xam ne wuute nga ak ñoom li ñu gëm ñoom ñooy taxaw sa sa maanaam ab tubaab du ñëw di xeex tey bokkum dëkk boo xamante ne moom lii Amérique ko moom lii Britannique moo ko moom euh, Angleterre léegi ñu nekk si ginnaaw ñooñu di jànkonteeg ñoom ñu yilif suñuy réew nangu suñuy suuf di fa def di fa dindi te bi li ñëw da am ñu leen dalal li gën a xorom suñu réew yi nekk da am ñoo xam ñoo leen dalal pour ñu pour ñu mën a sax sax ci dëkk bi te bi leen dalal dalal ko jàpp loolu jariñ la ñi doon contre loolu tamit jàpp ne loolu du njariñ jàpp ne loolu du njariñ kon loolu jafe moo ñëw ci dëkk bi dem ba nag am na benn dawla boo xamante ni dawla islamiya la bu yàgg boo xam ne daanaka am na juróomi xarn muy dawla osmaniya bi mu rotee nag ca la carte gi leer dawla osmaniya bi gars yi fexee ba daaneel ko nag moom ci leen kii réew jullit yi te leen jël maanaam réew yu doon atte atte islam ñu dindi ko dugal affaire affaire affaire droit yi nii bëgg yin bëgg ñu koy jàllale ci ci état bi réew moo xamante ne yaa ngi fa toog dina tobay bokk defoo ko te amoo genn kàttan gi ñu jëm laa wàcce pour pour pour teg fa keneen loolu mu indi jafe kon jafe-jafe ci wàllu jàng joué parce que lu ne ñu la jàngal la jàngal anglais islam bi ko doon jàng ñu ginnaawal ko daara alxuraan ñu leen xeex ba comme ni comme ni mu tey malgré Sénégal nag yàlla dimbali leen ba yu bare bari gars yi réussir ñu si mais falan jëm bu ñu bàyyi ni mu jàll kii boobu fala fala jëm kon réew mi kon am na jafe ci côté politique am na jafe-jafe ci wàllu social ndax social li muy lekk ak li muy naan da koy jéggaane bu dee wàllu jàng système bi ñu koy jàngal bu kenn kenn jëlee ko ci réew mi réalité réew mi bu dee ci wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu xalaat ak yu mel noonu xalaati jàmbur ci la ñuy dox ñun ñëpp amuñu ci xalaat da ngay ñëw maanaam ni ñu ko waxee noonu koy jafe waaw kon loolu jafe-jafe am solution boobu nag pour mu pour pour yin ci mën a proposer pour pour pour maanaam changement bi am mooy lan ñu ñu bàyyi xel xale yi ci ci ci ci ñu ñu daal li na tahil al ili nit ki bu fekkee dafa ak juddoo ci askan danga ko war a yar xamal ko cosaanam xamal ko mooy kan bu noppee bu fekkee ab jullit la ñu jàngal ko islam islam bi nga xam ne islam la maanaam waxuma islamu naar wala islam bi xam ne islam xam ne lii mooy lii mooy faratee lii mooy sunne la cay nekk aadee naar ñu bàyyi ko naar yi la ci aadee Sénégal ñu ñu tatbiq ko ci aadee Sénégal loolu mooy tax suñu huwiya ifriqiya bi day day day des day day day des day des bu baax a baax loolu mooy ci ci ci ci côté diine bi li la xamal loolu mooy ci suñ kilifa diine yi liggéey nañ ci lu bari mooy tasawuf ci boppam tasawuf yow bi nga xam ne nekk nga maanaam tey jii nii yenn turux yi xam ne dañoo yaatu par exemple lu mel tijaane tijaan mi nga xam ne mu ngi jógee Sénégal nii nii nii bu jaxasoo bi nga xam ne Tunisie la nekk wala Maroc mën na ko xeeb ci loolu parce que duñu am sax suluk duñu am naar moom dafa xaw topp bakkanam ci yu bare bare bare bi te Sénégal lu mu dugg te dëggu ca maanaam mën na ca mën na caa dem ba jeex takk waaye naar moom lu mu dëggu rek bu yàggee rek xamal ne yàggir gis am na lu ci xew ci jimee général am na naar yu dëgg nag yu baax waaye nag maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam naar yi xaw a kii ñoo gën a bari yi nga xam ne ñoo dëgg ci ci ku jaxasoo ak ñoom kon loolu jafe-jafe boobu am na kon tarbiya tarbiya waxtaanee bi nga xam ne ci dëkk bi day bëgg dëkk bi maanaam lu muy jàng ñu fexe ba fi bu jàng jotee fi leen koy jàngalee maanaam bu bëggee nekk ab jàng nit nit alxuraan jàng alxuraan mu jàng fi alxuraan ba mokkal bu bëggee jàng arab mu jàng arab jàngal arab bu ko neexee su bëggee nekk leneen moo xam économie lay jàng wala lu man di jàng ñu jàngal ko ko te teewul ñàng moom bu mu soppi dara ci nekk gi mu nekk ab sénégalais nekk gu mu nekk ab jullit lool lool loolu loolu mooy li nga xam ne moo war a njëkk war bu nappee tamit li mu jàng ba am ci diplôme bu nappee bu wëlbati ko bëgg liggéey ñu ne ko fii ngay liggéey fii ngay liggéey parce que ndaw gi bu fekkee daal liggéey ba yore diplôme war a war a liggéey liggéeyaloo mu toog yore diplôme keneen kuréel yi kuréel yi àdduna bi kuréel yi sosu ñoom ñooy ñëw fëkk détourné ko détourné ko ni koy xam-xam bi nga yor ñu toog fii di la seetaan xaalis a ngi nii defal nangam defal nangam ci ngay gis tey jii maanaam ay kuréel yi di di di di wër maa ngi say jàmbur yi nga xam na ñu naa ba yor si diplôme wala ay yoo xam ne da leen a wàccee am ñu lu liggéey ñu xam ni maanaam bu ñu boo xamante am nañ pexe yu ñuy jaar pour lijjanti xaalis am noonu am ci kuréel yi dem bokk seen biir ñu la jox alal ju jeex ngay taxaw pour rayal sa bopp te danaa la bismillah danaa la da ngay ñëw ci ñun am xaalis te boo dee àjjana nga jëm loolu la lay gëm loo nga gëm ko booy dem dekk si coom di am xaalis di am ay oto yu rafet di am ay kër ak yëpp te boo faatoo dem dem dem àjjana shahada nga am mooy ñoo xam yegg nañ sax dañuy takkoo bomb takk takk takkoo bomb pour pour dem exploser seen bopp ci ay ci ci ñu jàppee ay noon jàpp ne moom faatu googu faatu moom tudd tudd tuddul xaru waaw te loolu ñu koy def ñëpp ay ay ndaw lay doon ndaw ndaw ndaw lay mooy sabab bii nii kon xeeti xeeti xeeti xew-xew yooyu noonu wala xeeti borom xalaat yooyu wala jamaar yooyu noonu parce que da nga fiy jógee bu ëllëg moo fi nekk waaye fii neen xale bu ñëwee sax julli si gu bari sax da nga koy tàmbalee fiire ci biir waaw loolu jafe la loolu jafe-jafe wala tey ji bu demee ci mbooloo di wax bu yëkkatee kàddu war a ñu ne ko gone gone du biir mag waaw même sax boo toogee di xéwloo ku sant loo sax mun na sa loxo sa loxo na yem na yem na sa sa kanam loolu day ba xale bi day jàpp maanaam maanaam moom amul rôle bu mu war a joué ci daan te loolu loolu loolu jafe-jafe la bu dee suñu réew mi tamit maanaam état bi del xool ku ko yor rek daanaka koo xamante ni moom dafa yàgg trop trop trop yàgg ci kii bi poste kenn du ci boo boo boo équipé leen ci liggéey ba ba toll fenn fi roccikul nga bàyyi ki ñëwagul mu mu avancé parce que sa xalaat sa xalaat bi nga amoon liggéeyal nga ko réew mi ba pare léegi moom bàyyi ko moom mu ñëw daal di daal di joxe xalaatam mais bu ñëwee rek nga baare dañuy yegg sa nga gis Sénégal boo xam te ne dañ koy fal leen mu mën ko trop mais fi ni nii pour mu liggéey maanaam dinañ koy tàmbali yàqal gisoo tàmbali ko yàq liggéey ko wala ñu dem ci maanaam génne ab sekkeeram boo xamante ne buñ ko waxee mu day daw génn réew mi yàq deram wala yu mel na yëpp da ci ko waral mooy maam ñi nekk ci kaw ñu ni keneen du ñëw loolu day dem ba day ñàkk yaakaar lay dugal ci biir sabab bi mooy waxambaane yi jàpp ni fii de moo amu fi fii amu fi place dañuy gis ne sax benn mbir xew de nga nga nga conseillé ko pour mu dem ci mu lay foofu sax moom foofu xam nga la fa xew nangam ak nangam fa xew ngir ñàkk yaakaar goo xamante ne dafa am kon nan delluwaat yaakaar ndaw ñi bàyyi leen ñi ñi ñi ñuy participer ci ci kii bi même yow sëñ daara bi jàngale sax boo yore gone boo dem na ba mokkal nga xam ni mokkal na alxuraan bu ko bàyyi noonu bu ñëw tardé dem toog déedéet yenn saa yi xaw koo kii responsable jox ko benn xale bu muy téyel wala yenn saa nga jox ko benn dong wala ñaari donga kooku dana dana yëg masuuli ci lay formé wu ba bu bu nekkee magum jëmb li nga yoroon mën na ko mën na la cee wuutu wala mën na sosi fi boppam waaye nag lu mu laal rek nga ne ko déedéet day dem sax ba nekk ci da gis daar yi ñuy jàngale alxuraan da nga gis benn internat par exemple benn benn suñu Moustapha Jaxate tabax internat jël ñaari jàngalekat benn bi alxuraan dong la mokkal benn bi mooy ki ki ci gën a mag mën a mokk alxuraan kese keneen ku ndaw ki mokkal na alxuraan am xam-xam ñu tàmbalee jàngale si biir daara ji de ki mag kii mooy yilif daara xale yi demee ba mokkal maam bu nu mokkalee dañuy jàngi xam-xam lu tax jëlul ki maanaam ñi ñi mokkal jox ko ki ku ndaw ki mu jàngal xam-xam waaye doo koy fiire ndax bu ko jàngalee xam-xam rek bu tàmbalee jàngale ba xam-xam bi tàmbalee dana ku ndaw de maanaam maanaam moo man waa ji ndax ñaar yëpp la man mën naa jàngale mën naa jàngale xam-xam fii te tamit amoon jafe-jafe ba waa ji dafay mujj jóge dafay dafay mujj jóge loolu jafe-jafe te ta nga ne diine nga jàng di fiire di fiire di fiire di fiire xale bu loolu loolu tamit jafe-jafe la boo xamante ne lu am la te yaat na suñu réew mi trop trop trop yooyu nag mooy ñàkkal yaakaar ndaw ñi te yooyu wares na ko dindi bu baax a baax a baax a kon ndaw ñi bu leen jàngalee yar leen xamal leen seen bopp nañ leen di bàyyi ñuy musaaraka ci maanaam ñu ñuy participer ci li xew ci réew mi muy ci côté politique bi mu ci wàllu côté société bi mu ci côté njàng euh, njàngale bi ak ak lépp loo xamante ni aju na ci mbir moom loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu bu bu bu bu baax a baax kon kon ndaw ñi lii mooy tax maanaam kon kon dund gi ñuy dund nii ñu mën koo kii ak tamit benn tamit ñu bàyyi ko bàyyi xel mooy nit ki bu fekkee wutal nga ko liggéey ci dëkk bi du soxla feneen ndaw ñi jël seen i tëj seen i di dem topp gaal gi di dee ci àll bi wala ñuy topp kii loolu defuñu ko pour pour pour pour bëgg àdduna kese li ko waral mooy bëgg noo dund wala tey nga gis koo xam ne biir këram lay nekk am ay ñaari doom taw bi yàlla def na maanaam loo xam jotul ginnaaw gone bi di def dara fi gone gone bi lay jël teg ko ci kaw taaw kooku kooku fi nii maanaam borom bu fekkee borom ngor la day bu du kër xanaa de li may def li xam ne danaa fexe ba am ko xam ne bu ma ko defee sama sama waajur teg ma fi mu war teg dinaa ko wuti mooy xaalis loolu tamit jafe-jafe la boo xamante ni bu rëy parce que madda xaalis danga ko teg foo xamante ni maanaam yëggu fa xaalis maanaam jumtukaay la boo xam ne maanaam dañ koy jël di jëfandikoo jëfandikoo suñ soxla bu ci bu ci jeexee jeex mais warul teg warul tax nga jël rakk teg ko ci kaw mag wala nga jël soxna su ndaw teg ko soxna su mag wala nga dem wala nga jël wala wala nga jël maanaam maanaam maanaam bàjjan bu yor as tuuti teg ko sa kaw yaay sax xam nga fii maanaam alal moom lu mu def ci Sénégal amul boo ko amee moom kullu shay maanaam maanaam kii ki lépp nga mën a lépp nga mën a doxal yooyu tamit ay ay ay la yoo xamante ni waras na ko moytu baax a baax baax ñi xam ne ñuy génn bitim réew nag di fa ja di fa jàng yi wala di fa di fa di fa di fa di fa di fa di liggéey dañuy gis koo xam day ñëw li muy incarné Sénégal ak li li réalité bi amul dama yàlla jégal bu njëkkoon dañuy jëw ci ab dëkk ñu ni dañ fay maye soxna cen gi ñaata la deux cent mille francs la cent mille francs kay jóge bitim réew yor alal fa maye un million wala deux millions léegi day dem maanaam képp ku bëgg a maye day day day day dem ba loo ko jox da koy dëkk war na ko continuer noo ba noppi di am loo moom lay moom moom lay suturloo te kilifa yi ko yilif nag ñu mat kilifa mu moo xam ci côté diine bi la nit ki bu fekkee da nga yilif ci wàllu diine lépp luy islam digle bu ko a teg sa bët lépp lu tere bu ñëwee da ko war a da ko war koo xamante ni sa kilifa jii ne benn waay bu bëgg àdduna benn waay xam ne tey jii nekk ab musicien wala nekk ci lu jubul de war laa war laa gis siyaar la maanaam moom moom mi nga xam ne la day la yor dem ci béréb sàngam boo xamante ni kilifa ga moo ko war a njëkk gis de mais ab politicien bu ñëwee politicien moo ko njëkk gis nañ yooyu dafa dafa xorom kooku day dem ba yëg nii de lim am daa mel ne kay lim nekk moo gën moo ngi gis xam ne ni mujj bàyyi lan nekkoon dem fekk dugg ci mbirum politique politique xamuñ ci dara boo ne day dem day yàq sa dignité wax ju ñaaw moo cee am wala nang te politique lu baax la lu baax la bu fekkee def nañ ko ni war a defee mooy mbir mu ne nga teg ko fa nga war a teg mbir loo lu ñuy doxal lu ne nga doxal ko fi nga war a war war war a doxalee kon lii mooy réalité mi nga xam ne moo am ci réew mi li ni séntu nag mooy yooyu ñu proposé woon léegi ñu formé waa ndaw ñi gën a veillé ci yar bi maanaam kër nag looy bañ mu carla fa bu mu fa tawlu loo xamante ne bëggoo mu sax fa mu sax fa bu tàmbalee leen neel de waaw te ñuy diglu ndaw ñu baax a baax gën leen jigéele seen bopp ak ant ak àdduna bi ni muy doxee soppi soppiku yi am ci àdduna bi ni muy soppiku ni muy doxee ñu bàyyi xel bu ñu yar ndaw ñu loolu jàpp ni yar bu ñu war a yar bu njëkk bi mooy dox ba léegi boo ko defee day waral xale yi nga gis ñuy daw di di di dem ci feneen foo xamante ni nekk seen bopp dañuy mujj sax gis koo xamante sax day ñàkk doom jim jur ñàkk ngir bu ko forcé na nga mu bañ waaw kon dégg àdduna baax na ci baax a baax léegi ba noppi bu ñu àdduna bi tamit xew-xew yi àdduna bu ñëw rek ñu intégré ko teewu nañu sàmmonte yarub diine lam ciy digle ak lam ciy tere bu baax a baax kon dana tax ndaw ñi bu ëllëgee dana am responsabilité boo xamante ne dañ ko mën a yanu boo xamante ne du duñ yéeg seen bopp ni ñun ñun ñun fi ne nii danoo tële wala ñun waruñoo def wala waruñoo dind kon loolu lu jar a bàyyi xel la thème bi nag xam naa daa nekk lu yaatu loo xamante ni mënee su koo mënee su ko pegg xam naa liñ bindal lépp sax danoo mujj teg ko à côté wax xool maxawir kubra yi daal ci wax mais maanaam gën naa gën naa yaatu loolu baax a baax ma waaye nag ñetti waax yi ma lay wax ni Sénégal moo ci am mooy côté diine ji côté politique bi côté wàllu wàllu wàllu jaani fikri yi mooy mooy mooy mooy ak ak saqaaf yi mooy côté culture bi yu mel noon yooyu war nañ ci sàmmante bu baax a baax yor sa doom nga koy sóoraale ci yent yooyu noonu soo ko ci formé wul ab xale xale comme ab ab pot la bu taajee soo ci deful keneen ñëw def ci soo ci deful keneen ñëw def ci kon veille ci xale yi bu baax a baax takk wi leen ci maanaam yii nii ba ba xam ne du bu ndajee keneen duñ yëg bopp jàpp ni kooku moo leen gën wala moo leen moo leen moo leen kawe mais ñoom itam duñ yëg seen bopp jàpp ñoo gën kooku wala ñoo waaw kon nag yem ci tawassut tawassut kon nañ taxaw foofu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu lépp loo xamante ne am na ci xëy na ay ay ay rëcc rëcc suñ gàtt xam-xam la ñàkk ñàkk xibra lépp lu ci lu ci jub tamit lool la yàlla dogal di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu